أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ci kàttanu boroom bi nu toll ci suratul maida ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 82 83 84 85 mu nekk ñeenti aaya yoo xam ne sunu borom jalla jalaaluhu du deñ diñ ci xamal xeet woowu nuy tuddee yahud seenu mbon ak bañ gi ñu bañ jullit yi ak bés bu nekk waxtu wu nekk seeni pexe ak seeni melokaan ak seeni jëf ni ñu jëme ko ci jullit yi sunu borom subhanahu wa taala bi ñu xamalee mbirum yahudi ba pare ci seeni ñaawteef ak seeni melokaan borom bi xamal nañ ne ñooy xeet wi nga xam ne ñoo gën a bañ ab jullit ci kaw suuf li ko waral mooy seenu mbañeel pas-pas la ci ñoom ñoom dañ koo gëm soo demee ci téere boobu tudd Talmud nga xam ne ci seen téere yi ñu gën a gëm la danga fa fekk seeni pas-pas yi ñu fasal jullit yi kon loolu day wane sunu borom jalla jalaaluhu bu nu waxee mbonuk yahudi ak seen melokaan ba pare wax nañu ne ñoom ñoo ñu gën a bañ loolu mbokk yi loolu ñun jullit yi war naa nekk sunu pas-pas ndax ki ñu ko informé mooy sunu borom jalla jalaaluhu moom sunu borom mooy ki nga xam ne moo ñu wax ne ann al yahud fi gaayati al adawa lil muslimin ne ñooñu xeet woowu ñu naan yahud ca combaxtal ca fin wu bañ bu ñu bañ jullit ñoom fa la ñu tàmbalee moo tax suñu borom lënkal leen sax ak bokkaalekat yi xanaa ñaari mbooloo yooyu ñii di yahud ak ñii di bokkaalekat mënuñoo fexe ba bañ jullit ñoo ñu naan mushrik mooy jaamukatu xërëm yeeg animiste yeeg ñoom ñëpp a yem kenn ci ñoom ñaari xeet yooyu mun noo muus ak waane ba ñu bëgg jamais moo tax perte na ku defa ne jamono dina soppeeku ba yahud bëgg jullit wala ab bokkaalekat bëgg jullit ab jullit bu yeboo rek mu xam li ko yàlla wax mooy dëgg te li nu yàlla wax dara du fexe ba mu teggeeku ba mu tebbeeku parce que mooy sunu borom mooy xam moo xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla mi xam moo nu informé kon ñun bu fekkee ne dañu nekk fi ne dañuy négocier dañuy nangam ak nangam dañuy nangam ak nangam dañuy nax suñu bopp rek tëji dan na c'est sûr ah pour man loolu laay jeexale sama téere de moo tax indiwuma téere ba sax jàpp ma ne jëloon nañ ko de dañ ko jëloon sam ni ñëwoon nga la taji dan naas dan naas lañ jëloon wala ñu war a commencé tey waay waay man loolu laa jàpp ci sama téere bi ma jeexal moo tax may non loolu loolu dars la woon bu fi jaaroon rek tey bii la ñuy jël parce que man moom laa moom laa jàppoon ne moom la ñuy jël moo tax ma indiwuma téere ba la tey parce que fële laa yem ci bële laa yem moo tax ma xam ne bii la ah gars yi bii la débat ñaareel mooy ñii di bokkaalekat gis nga sunu borom nu mu ci wax wallazina ashraku daf leen a lënkale ak ñi nga xam ne ay yahud lañ maanaam bokkaalekat ak yahud ñooyam mënuñu bëgg jullit kon loolu lu ci ab jullit war a jële mooy na fexe mu xam ne li ko yàlla wax mooy dëgg ñun nag sunu wa sunu mbir mooy ba nu yàlla waxee ba pare danoo lànk li nu yàlla wax yàlla moo ne ñu ne mbir mi lii la ñun ñu lànk ne du loolu lii la loolu moo tax ñu am jafe-jafe buur bu toll na yàlla ba mu nu informé septième siècle ba léegi alxuraan di wàcc yàlla xamal ñu ne da ngeen fekk yahud ak bokkaalekat ñoo gën a bañ jullit boobu ba léegi mbokk jullit yi yéen ñii nga xam ne sax léegi ngeen judd ndax gis ngeen ci changement ndax gis ngeen benn benn rek ab yahud bu bëgg jullit benn ñun ba ñu juddoo ba léegi noo ngi fekk diggante Palestine ak Israël ñuy xeex bés bu nekk yahud yi di bombardé jullit yi bés bu nekk bés bu nekk di leen rey di xatal su ngeen demee Palestine li gën a garaaw li yahud def mooy ndox mi la ñu ŋàcc ndox mi ndox ndox mi ci suuf si la ñu ŋàcc ba waa Palestine bu ñu gasoon sax du ñu am ndox du ñu am lu ñu naan loolu lan moo ko gën a garaaw loolu tey boo ko waxee nit ñi jullit yi xamuñu loolu xamuñu ne Palestine bu ñu doon gas fi mu nekk nii pour am ay teen yu ñu naan sax du ñu naan parce que ndox mi ci suuf la Israël yàq ba pare ŋàcc ko nga yàq yàq la fa des soo demee ci géej gi dañ ko xaaj palestiniens yi dañ leen may tuuti rek ay 40 mètres yoo xam ne ci biir géej gi foofu la ñuy yem bu ñu ko dépassé ku ko dépassé bal lañ lay dóor nga dee loolu tey jullit yi xamuñu ko jullit yi xamuñu ne yahud li leen yàlla wax mooy dëgg ci ñoom nit ñoo xam ne dañ doon rey ay yonent nit ñoo xam ne yàlla su seen borom mi leen bind bàyyiwuñ ko ñooñu dinañ bàyyi nit kon mbokki jullit yi ay yi ci sunu kanam sunu boroom daf ñu ci xamal ñan ñoo yahud yi waaye ñan ñoo gën a bañ ab jullit ci kaw suuf sunu boroom jox ñu ñaari nit mooy al yahud ak al mushrik ñi nga xam ne ay bokkaalekat lañ waaye am na beneen kuréel boo xam ne sunu boroom mu ngi nuy jox seen melokaan mu ne ñoom da nga fekk ñuy ñu jege jullit ñi ci mbëggeel waaye ñooñu it ak ñii est-ce que benn lañ ñooñu yàlla di joxoñ fii ak ñii est ce que benn lañu ñooñ ñooy ñan yàlla mu ne mooy nasaraan yi xam ngeen ne nasaraan yi démb bi alxuraan di wàcc ña mu fekk ndooloon ñuy dund ak yonent ña ca baaxoon ba ñu déglu alquran ku mel ne najaasi keroog ba jaafar ibnu abi talib demee najaasi éthiopie ànd ak julit yi yéeféer yi màkk fekk leen fa bëgg leen a fexeel jaafar moo doon amir bi buur bi laaj ko muy najaas yi lan la leen seen yonent bi indil mu ne ko alquran alquran boobu waxal ma dégg mu daal di koy jàngal ay aaya nan la najaas yi def daa jooy bàyyi rongoñam tuuru ci ay lexam ba mu déggee kàddu yàlla lan la wax amr dellul màkka ñii ngay laaj pour ma jox leen yéeféer yi bàkka pour ñu rey leen ñii mënuma leen a leen a joxe yéen yow jaafar defal lu la neex yaataa yimbeel ci biir Éthiopie ci biir dëkk bi piccum ay du naaw tiim leen piccum ay du naaw tiim leen feek yéen a ngi fi ci jàmm ngeen di nekk ndeysaan lu tax parce que ñoom ñooñu xamoon nañ ñoom déggoon nañ ci seeni yonent ñooñu soppeekuñu woon ñu baax lañu woon jamono yooyu moo tax bu ñu dégg alxuraan yàlla nettali ñu ne ndeysaan rëy rëy luñu bu ñu déggee alxuraan dañuy yokk waaye sax seeni bët day tuur rongoñ ndax lañ ndax dëgg ga ñu fekkoon ci seeni téere moo dëgg bi benn kesa la moo tax najaasi bi mu déggee alxuraan yat bi mu yoroon nga xam ne moom lañ def croix bi def ko rëdd ne ko tàmbale ko ci commencement bi indi ko ci fin bi ci kanam ak ci ginnaaw mu ne wallahi jaafar li nga wax ak ñun sunu yonent li mu indi mu ngi mel ne rëdd wi rek jub xocc jub xocc benn kese la amul ñaar loolooy dëgg kon ñooñu la ñuy wax waaye ñii sax léegi am nañu ak coppeeku parce que ñooñu ak ñii du benn moo tax perte na ku defa ne nasaraan yi ñu ngi ci njub perte nga perte na ku defa ne yahud yi ak nasaraan yi ñoom ñooy ahlul kitaab ñi yàlla di wax mukk ahlul kitaab ñi yàlla di wax ci alquran ñooñu daawuñ takk croix wala ndax jamono isa croix amoon na ginnaaw isa la croix bi am ba pare sax isa ci boppam balaa muy faatu moom leeral na ne ñii mu nekkal nii ay yéeféer lañ duñ ay jullit isa ci boppam moo ko wax fa lamma ahassa isa minhum alkufra isa ba mu sentiree ne ñii nii wër ko ay traître lañ ñëpp ay yéeféer lañ daf leen a gedd geddaay dem yoonam qaala man ansaari ila allah kon ñooñ ñooy ñaareel yi ñoom it ñoom tamit ñooñu tamit seeni mbir war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ba bañ a trompé wu waaye yàlla nee na ña ca njëkkoon ñu baax ña ñooñu day da nga fekk ñoom ñooy ñi gën a yërëm jullit ñooy ñi ko gën a jege ci mbëggeel ginnaaw loolu sunu boroom dellu na di leeral ay atte atte yoo xam ne atte sharia la ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne ñoom ñoo ci aju kon mbokk yi aaye bi ñeenti aaye yi nekk sunu kanam mooy sunu dars tey noo ngi ñaan sunu borom jalla jalaaluhu mu defal nu tawfiq bismillahi rrahmani rrahim لتجدن أسد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم أعينهم تفيد من الدمع ما مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتمنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين sunu borom jalla jalaaluhu mu ne la tajidanna laam bi borom xam-xam yi nee nañ laamul qasam la borom bi daa géñ mu ne géñ naa da nga fekk yow muhammad alayhi salaatu wasalaam asaddannaas ñi gën a tar ci nit ñi adaawa ci noonoo lillazina amanu ñeel ñi gëm yàlla mooy ñan mu ne alyahud yow muhammad alayhi salaatu wasalaam da nga fekk ci alquran ji yàlla wàcce ci yow xabaar boo xam ne boo ko vérifié gëstu ko dugg ci biir ànd ak yahuud yi da nga fekk la sa borom wax mooy dëgg mooy lan da nga fekk ñi gën a bañ jullit ci kaw suuf mooy alyahud mooy xeet woowu ñu naan yahud walladina ashraku ak gaa yooyu nga xam ne ay bokkaalekat lañ kon dana doy borom bi subhanahu wa taala mbokk yi daa di waat ne giñ naa ci sama màggaay man yàlla mu tàmbalee aaya bi baat boo xarfu boo xam ne xarfu waat la waaye baat boobu mu tëje ko nuun boo xam ne daf koy dëgëral muy nuunu tawkiid di ko dëgëral di ko feddali yàlla giñ dëgëral ko lan lay xabaar lan lay wax moom yàlla ak lan moo tax muy giñ ah ndax mbokk yi yàlla dana giñ ndax lu ndaw ndax yàlla dana giñant ndax yàlla dana wax loo xam ne di ko feddali di ko dëgëral te mbir moomu nekk mbir mu ndaw déedéet borom bi nee na da nga fekk asaddan naas la gën a tar ah ci nit ñi adaawatan noono lillazina amanu ñeel ñi gëm mu ne alyahud mooy yahud yi wallazina gaañ a nga xam ne ashraku ay bokkaalekat lañ waaw lii boo ko jàngee nga nekk ab jullit war nga ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ba xam ñi fi nga war a far ñi nga war a àndal ak ñi nga war a jàppalanteel ak ñi nga war a bëgganteel waaye aaya bi dafa ñëw di feddali alwala wal bara ñi nga fi nga war a far ñi nga war a jàppalanteel ñi nga war a bàyyi ak ñi nga war a def ay xarit waaw mu nga gars yi kenn ci ñun fi toog ci jàkka ji doo xarit toog ku bañ sa bàyyi ah benn waaye ne la sa bàyyi rek laa bañ nga ne ko yow yaay sama première xarit loolu kenn gisagu ko ah sa wayju rek laa bañ sa yaay laa bañ wala sa nangam laa bañ wala yow mii dama laa bañ ba pare nga ne ko yaay sama première xarit yaay sama première soppe loolu gisuñu ko fenn kon buur bu toll ne yàlla warul warul warul nu wax ba pare waxam nun nu koy ñu koy kafe wala nu koy fontoo wala nu koy ñu bañ koo def jox benn yitte yàlla li mu ñu wax ci alquran bi moom mooy dëgg ndax dafa giñ mu ne wala tajidanna da nga fekk aqrabahum mawadda am ñoo xam ne ñoo leen gën a jege ci mbëggeel ci sopp yàlla mu ne lillazina mooy ñi nga xam ne amanu ñi nga xam ne ñooy gën a jege lillazina amanu ñeel ñi gëm qaalu mu ne mooy ñi nga xam ne wax nañ ne inna ñun nasaara ñun ñooy an nasaara mooy ñooñ ñu naan nasaraan yi mu ne nazalat li wàcc na fi najashi ci buur boobu tudd najashi mu nekk malikul xabas buuru éthiopie wa ashaabi yi ak ay àndandoom qaala al imam zamaxsari sunu borom subhanahu wa taala melokaan bi mu melal yahud yi mooy suubatu ijabatihim ila al xaq munaa gis nga yahud munoo koo wax dëgg ngi nii ba nga am facilité ci leeral gi nga koy leeral dëgg mu ñëw jël dëgg gi jamais li anna kufruhum inaat wa juhuud ndax ñoom yahud yi seen weddi yàlla nekkul weddi ku réer déedéet weddi ku féttéerlu la xam dëgg ba pare lànk mooy dëgër bopp moo tax da ngeen di jàng ci fin wu faatiha yàlla ne ñoom ñooy almaxduub alayhim yàlla da leen a mere fin wu bi ñaar ñëpp la fa yàlla di wax mooy nasaraan yi ak yahudi xayril maxdub mooy yàlla bul ma boole ci ñi nga mere lan moo tax yàlla mere leen parce que yàlla da leen jox xam-xam ñu lànk mu leer leen ne lii dëgg la ñu lànk yàlla mu ne ñii daal dañ leen a mere an nasaara mu ne wala doolin yàlla bul ma boole ci ñi réer ñi ñooñu dañoo réer lu tax ñu réer mooy dañoo dal yàlla doom réer a ko waral moo tax suñu borom jalla jalaaluhu mu ne da nga fekk melokaan bi leen yàlla melal mooy lan wow gi ñu wowle lànk gi ñuy lànk nangu dëgg waaye da nga fekk nasaraan yi ñuy ñoo xam ne ñoo gën a yomb sax tuub loo dugal ci islaam li chrétien yi di tuub li nasaraan di tuub moo ëpp lool lu yahudi di tuub seet leen ko même ci àddina bi chaque jour nga gis ci facebook bi wala youtube chrétien bu tuub wala mais yahud bu tuub lu ko waral mooy dëgër bopp ak fittéerlu même bu ñu xamee dëgg sax dañ koy lànk même bu ñu xamee dëgg bi dañ koy lànk moo tax suñu borom jalla jalaaluhu mu ne ñii di annasaara ñoom ngay fekk aqrabuhum mawadda lillazina amanu ñooy ñi gën a jege mbëggeel ak cofeel ak ay jëflanteeg lu mu mën a doon ñeel ñi gëm yàlla amma yahud jamais doo ko fekk waaye ñu ne da nga fekk chaque jour ñu nekk ñu yomb orienté wala waxtaanal wala tuubloo leen indi leen ci islaam waaw gis nga moo tax suñu borom wa jaala al yahud qurana al mushrikin fi siddati al adawa lillazina amanu bal nabbaha ala ziyadati ala adawatihim bi taqdimihim ala alladina ashraku melokaan bu doy waar la bu ñu yàlla di melal fii ci ñii mu ne ci aaya yi ñu jàng léegi muy benn aaya da nga fekk sunu borom subhanahu wa taala mu lënkale mu boole ñaar bokkaalekat yi ak yahud yi mu boole leen ci benn camp mu ne ñoo bokk waaye di nga fekk ci nooneel gu ñu bañ jullit yàlla boole leen ba pare waaye li gën a doy waar yàlla jël yahud yi sax jëkke leen ci bokkaalekat yi te pourtant dañ ne yahudi ahlul kitaab lañ bokkaalekat yi amuñu téere ñoom ay mushrik lañ tey su fekkonte ne ab jullit dafa war a far ci ñaari groupe yii yahud a ngi nii mushrik a ngi nii ñu ne la foog nga far ci kenn day am yenn saay loolu la ñuy jàng ci qawaidul usul ne iza tazahama adadul mafasid ñu ne nartakibu adna minha suñ la boolelee yu bon yu bon lañ boole dañ laa booleel cigarette boole la ak póon boole la yamba boole la héroïne boole la ah ñu ne yi foog nga def benn wala ñu rey la tim tegale la bal sa bopp ba ngay jël ban la borom xam-xam wax nga jël ah pon ah déedéet pon moo gën a garaaw cigarette cigarette moo gën a oyof ah ok saañ la tegalee yu bon yu tolloog juróom wala fukk ñu ne lii foog nga def ci benn boroom xam-xam ne da ngay xool bi gën a oyof nga def ko suñ la tegaloon lu baax nag lu baax fanweer ñu ne yëpp a baax ban ngay def ban lan la borom xam-xam yi nga def bi gën a gën a gën a gën a baax dangay xool yooyu yëpp bi gën a baax nga def ko doo def bi gën a ndaw de déedéet déedéet bi gën a baax ngay def amma bu dee yu bon ñu ne bi gën a gën a gën a gën a gën a gën a oyof ñu ne boobu ngay def parce que lu bon la te ñàkk pexe moo tax nga koy def léegi imaginel yàlla lënkale yahud ak nas bokkaalekat ak yahud lan moo tax yàlla jiital yahud yi parce que ñoo gën a bon sax bokkaalekat yi moo tax loola borom xam-xam bi wax mu ne moo tax yàlla jiital leen ci aaya bi la tajidanna asad annas adawatan lillazina amanu mu ne al yahud après la indi ñan ah mushrik yi allahu akbar mu ne ndax bon gi ñu bon moo tax sunu borom subhanahu wa taala daat leen di jiital fii nabbaha sunu borom dafa yeete ala ziyadati adawatihim ci seen ndolleeku noonu gi ñuy noonoo jullit yi bi taqdimihim mu jiital leen ala alladina ashraku ci kaw bokkaalekat yi ndax ñoom ñoo gën a yiis ñoo gën a bon moo tax yàlla daal leen di jiital jalla jalaaluhu sunu borom allahu akbar kon yàlla moo wax dëgg parce que yàlla xam ala yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàllaa xam mu bind jaam ñi moo tax lum nu wax mooy dëgg ndeysaan sunu borom lan la ci teg mu ne zalika bi anna minhum qissisiin zalika bi anna minhum qissisiin wa ruhbaanan taalil li qurbi mawaddatihim ay kaanu aqraba mawadda bi sababi anna minhum ulama wa ubbad am na ci ñoom yàlla nee na zalika naka noonu bi anna minhum am na ci ñoom xissisiina ay pap ah mooy jiitu chrétiens yi wala nga ne ruhbaanan ay labbe am na ci ñoom ay cardinal ak ay pap ak ay ay ay labbe ñoo xam ne ñoom dañu ne ay jaamikati yàlla lañ yàlla lañu féetewoo moo tax ñoom ngay gën a fekk ñoom ñoo jege tuuti jullit yi ndax lu bon bon xam na nu yàlla am na nu teggin gis nga soo demee ci alxuraan li ngay fekk yahuud yi di wax yàlla di ko adressé paral yu jaaduwul doo ko fekk ci nasaraan yi qaalatil yadud yahud yadullahi maxlula loxo yàlla dafa këtt ñan ñoo ko wax ah yahud yi doo ko fekk nasaraan yi di wax wax yu mel noonu ah nahnu abnaullah wa ahibaauhu ñan ñoo ko wax yahud yi gis nga mu ngoog moo tax ñee ñoo tane minimum ñoom ñoo gën a lu tax ndax am na ci ñoom ñoo xam ne ay paap lañ am na ci ñoom ñoo xam ne ay abbe lañ moo tax ñoom ñoo gën a jege mbëggeel ñoom ñoo gën a am yërmande lu tax am na ci ñoom ay borom xam-xam ak ay jaamukatu yàlla ba pare wa annahum la yastakbiruun ñoom duñu rëy rëylu gis nga ko yenn mbubu yooyu sax la ñuy sol seen mbubu yooyu simple yooyu seen koppatu yooyu rëy rëy luwuñu meluñu comme yahuud yi nga xam ne yéen gis ngeen leen ah ay costume yu ñuul kooku la ñuy sol kenn xamuluñu ak seen mbaxna yu bon yooyu mu ne ñi yatawaadaun dañuy suufe suufelu ah li duaatihim sax sax seeni wootekat yooyu ñu suufe lañ ñu nangu lañ balaa nga doon xam loolu tey nga gis ñoom bu ñu demee ci àll bi ni ñuy christianiser dëkk bi suñ ñëwee dañuy jege nit ñi dañuy jël alal di leen jox soo feebaree ñu faj la pour lan pour génne la ci li nga nekk yahud yi moom mosu leen gis sax ñu naan dañuy daawa pour def nit ñi ay yahud ñoom ay bandi lañ li leen intéressé mooy alalu àdduna ñoom guerre rek ah sàcc alalu nit ñi rey bombardement kese mooy jikko yahud amaa nasaraan yi sax di nga gis leen saa yenn saay ñu ñëw ci dëkk tabax marché tabax hôpital wala wala wala yu ndaw ndawaan yooyu yàlla di ñu wax moo tax nga dégg yàlla mu ne ñoom ñoo ñu gën a jege ci yërmande te boo ko xoolee da nga koy gis wala yàlla lim ñu wax rek moom mooy dëgg mu ne ñii nii nuroowuñu ak yahud yi wala yatakabbaruna kal yahud abadan du ñu rëy rëylu comme yahud yi ñoom amuñu loolu ñoom nangu nañu jàng nangu nañu déglu nangu nañu jege nit ñi ah nangu nañu sax jël xam-xam ak nangu nañ koo jëfe nangu nañu sax yenn saa yi dummóoyu seeni bànneex gis nga moo tax ñu ne làbbe làbbelu ña ko mën a respecté ci moom ña ko mën a respecté ci ñoom am na waaye genn waatu gi yëpp dañuy débordé borom bi nee na wa ida samiu ma unzila ila rasul bu ñu déggee sax yenn saa yi la waa yàlla wàcce ci yonent bi lan la yàlla wàcce ci yonent bi alquran wa ida samiu alquran almunazal ala muhammad rasulillah bu ñu déggee alquran bi nga xam ne moom la yàlla subhanahu wa taala wàcce cib yonentam tara ayunahum tafiidu min addam'i nga gis seeni bët yi ndeysaan di tu rongoñ lu tax mimma arafu min alxaq ndax la ñu xam ca dëgg la ñu jàngoon ca injil la ñu jàngoon ca làmmiñu yonent ya i isa ak muusa isa waxoon na leen ne am na yonent buy ñëw sama ginnaaw ahmad la tudd kon ñoom xamoon nañ ko ah gis nga ku mel ne najaas yi moo tax ba mu déggee jaafar daal di jàng alxuraan bi rek lan la def dafa jooy ndeysaan suratu mariam la ko jàngal ndax am ngeen lu alxuraan di wax ci mariam mu ne ko waaw waaw am nañ kay mu ne ko indi ba mu ko dégloo nu mu def dafa jooy abdullah ibnu salaam tamit gis nga bu mu déglu alxuraan gi dégg yonente bi alayhi salaam lan la def dafa tuub fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ñu ëpp ci ñoom danañ nangu discuter danañ nangu dëgg parce que xam nañ jàng nañ amma alyahud nag ñooñu ay bandi lañ ñooñu amuñu sax xam-xam seen yoon nekk seen xol yi dañoo waaw koŋ comme ni ko yàlla waxee waaw ñii nag moom nangu nañ jël dëgg ndax nangu nañu déglu ndax nangu nañu jàng am xam-xam moo tax yàlla ne subhanahu wa taala bu ñu déggee li yàlla wàcce cib yonentam muhammad te mooy alquranul karim mu ne nga gis seen bët ya di tuur ay rongoñ allahu akbar lii lu rëy la mbokk yi bu njëkk ba alquran bu ko nit ñi déggee rek dañuy jooy amma tey alquran zinatun lil xaflaat hmm? alquran dañ ko def taar ngir ngir daje yi tey bu ñu amee benn daje islamique alxuraan la ñuy ubbee da ngay gis waa ji ngénte alxuraan lay ubbee ngénteem ah musicien bi bu ñëwee huit heures bu ñuy tudd ba neuf heures lu muy teg alxuraan bu imaam demee alxuraan boobu ñu teg doon teg ñu teggi ko teg lan ah musique alxuraan tey lépp lu ñuy def ci suñu cérémonie yi dañ koy ubbee kese ubbee même bu dee conférence yi sax dañuy teg alxuraan bu conférence bi pare ñu teg wala daal di def ay banderole alxuraan lépp zina rek alxuraan bu nit di waaj a dee sax ñu ne nañ leen ko jàngal alxuraan ndax mu dee ndax kii sukuraatam bi yàgg na jàng leen alxuraan ndax mu dee noppul wala ñaata yoon lañ leen di wax ne kuy dee jàngal leen ko yaasin ndeysaan benn borom xam-xam dafa wax ñaar ci benn saar mu ne taaha ma anzalna alayka alquran yow muhammad yàlla nee na wàccewuma ci yow alquran pour nga texee di alquran wàccewuñ ko ci nit ñi pour nit ñi texee di ndax pour nit ñi dee dañ ko wàcce pour nit ñi dund waaye buñ ko bàyyee it dañuy texee di wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka wàcce wuñ ko ci ñun pour ñu texee di waaye buñ ko bàyyee texee di ah ah kon nag gis ngeen téere bu ñu war a jàpp la ndax information yi téere bi moo ñu koy jox mais mal asaf lii ni yàlla di wax ni ci ci jàng rek la yam tey ci jàng rek ci jàng rek loolu tax ñu am jafe-jafe ñu am problème xamuñu ku ñu war a bëgg xamuñu ku ñu war a bañ xamuñu ku ñu war a àndal xamuñu ku ñu war a jàpp xamuñu ku ñu war a bàyyi waaw ñii ay melokaan la yoo xam ne yàlla moo ko joxe ci seeni melokaan la nekk suñu déggee lu yàlla wàcce ci yonent te mooy alquranul karim ci yonentam bi muhammad seeni bët daa di tuuru ay rongoñ lu tax mimma arafu min alxaqi min ajli maarifatihim annahu kalaamullah wa annahu xaq lan moo leen jooyloo lii kat waxu yàlla la moo tax ñu jooy lan moo leen jooyloo lii kat dëgg la moo tax ñu jooy tey ñaata jullit ñoo xam ne bëgguñu dégg alxuraan am na ci leen sax ci ñun tey jii boo doon biis rajo ba rajo bi egg ci ond bu am alxuraan da ngay gaaw yenn saa yi sax ndeysaan nga taal ñu ne fayal eh fayal lii waay fayal lii fayal lii te waay lii alxuraan la fay ko man ñoo xam ne ci ñun bëgg ñu dégg sax alxuraan xoolal ñi ñoom bu ñu déggee alxuraan dañuy jooy lu njëkk ñaar moo leen jooyloo bu njëkk bi lan la waxu yàlla la ñaareel bi dëgg lañ dégg allahu akbar ndeysaan waxu yàlla la ñaareel bi dëgg la duñ ci yem de yaquluna ña nga naan rabbana yow sunu boroom amanna ñun dëggam nañu ay yaquluna ya rabbana saddaqna bi nabiyik wa kitaabik yow sunu boroom nun dey gëm nañu sa yonent ñun dey dëggal nañu sa téere yaquluna rabbana amanna faktubna maa shahidin yow yàlla nun dey gëm nañu lii sa kàddu la gëm na ne lii mooy dëgg gëm na ne lii nga wàcce ci sab yonent dëgg la moo tax dëggal nañ sab yonent dëggal nañ sab téere kon nag yow yàlla noo ngi lay ñaan nag nu bind maa ummati muhammadin alayhi salatu wasalaam alladina yashhaduna ala al umam yawma alqiyama qala ibnu abbas nazalat hazi al aya fi nnajasi wa ashaabuhu الذين هنا تلا عليهم جعفر ابن أبي طالب بالحبس القرآن بكوا حتى نعم بالحبس القرآن بكوا حتى أخذلوا لحاهم نينا gaay buñ déggee alquran bi ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla boole leen ci ab yonentam yàlla boole leen ci ñi gëm yonent bi waaye ñi gëm téere bi ñii nga xam ne ci xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lañ bokk ñu ne yow yàlla yàlla nag ñu ci boole faktum naa ma ashahidin ñan la allazina ñi nga xam ne yashaduna ñooy seede alal umam yowmal qiyaama ëllëg yowmal qiyaama xeet wii di xeetu yonent yàlla muhammad mooy seede yeneen xeet yi su yàlla dajalee jaam ñi ci ardul mahshara muy laaj yonent yi ndax jottali woon ngeen ndax li leen yàlla yónni woon mottali ngeen ko joxe ngeen ko yenn xeet yi dëggal yenn xeet yi weddi xuloo boobu di am ci diggante ñaari xeet yi yonent bi taxaw ne man yàlla waxoon naa waa xeetam ne ko waxoo du dëgg ñun xamuñu la gis ngeen nit ñi niñ dëgëre boobu yonent taxaw ne yàlla yaa ma yónni woon ci dëkku sàngam ba ma demee waxoon naa ay nit taxaw ne yàlla kii xamuñu ko mu naan yaa ko yónni woon kii mooy kan waaw léegi nag naka la yàlla di def ñaar ñooñu yàlla day woo xeetu muhammad ne kaay leen ngeen seede ñaar ñi ñaari diggante yonent bi ak xeet wi lu tax xeetu muhammad mën a seede yeneen xeet yi mbokk yi lu tax ah dégguma ko ah alxuraan alxuraan moo nu nettali xeet yi fi jaaroon yàlla yonent yi mu leen yónnee woon ak yonent lañ defoon ak yonent ya lañ waxoon ak yonent ya lañ lañ daj moo tax xeetu yonent yi yeneen xeet yi xeetu Muhammad mooy ñëw seede ne yàlla dëgg la yonent bi li mu wax dëgg la ndax ñun jàngoon nañ ko ci alquran suñu yonent leeraloon nañu ko ne dëgg-dëgg yonent bii nga yónni woon ci xeet wi daj na fa la mburu di daj ci puur ah allahu akbar moo tax mu ne faktum naa ma ashahidin allazina yashhaduna al umam yowma alqiyama ibnu abbas nee na aaya bi dafa wàcc ci najaasi ak ay àndandoom ceroog ci éthiopie ba leen jaafar jàngale alquran ñu daal di jooye waaye gis na ci yeneen tafsir yu weddi wax ji ne aaya bi wàccul ci najaasi lu tax nee na saar bi madina la wàcc aaya bi madina la wàcc te mbirum najaasi màkka la woon balaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay la ca wér nag loolu ca yàlla la waaye gis naa lu weddi loolu man mbokk yi mu ne wamaa lana lan moonu dal laa nu'min billahi ba nun du nu gëm yàlla wa ma jaana min alxaq allah ma allazi yamnauna ala aliman wa yasudduna an ittibai alxaq wa qad laaxa lana alsawaab wa zahara alxaqu almubin munir gis nga gaa yi nee nañ wa ma lana laa nu'min billah lan moo nu dal ba nun gëm yàlla wax ji doy waar la wa ma jaana min alxaq ak la nga xam ne dëgg ñëw na yàlla subhanahu wa taala indil ñu ko mu leer naññ kon wallazi yamnauna anil iman lan moo nu tere gëm doomu aadama bu dëgg desee leer ci yow këng lii mooy dëgg mu ngi nii alxuraan a ngi nii sunnaa ngi nii neel rek keng lu fi desati yenn saa nga gis benn waaye ne wallahi xam naa ne li ngeen wax mooy dëgg lii dëgg la waaye nag ndeysaan waaye nag man wax dëgg yàlla mës naa gis benn jigéen ndeysaan benn maire ñuy yóbbu séet ñu boole ñoog maire bi ñu encadré xale bu jigéen bi yóbbu ko ni ñuy yóbbee jigéenu jigéen jullit buy sëy encadré ko ba yegg ñu def seeni yarak waa ji teeroo ko soow ñu julli naan soow maire bi toog ba caay rek jooy mu ne wallahi bu ma nekkaatoon xale yéen lay àndal wallahi bu ma nekkaatoon xale yéen laay àndal ndax lii ma gis nii mosuma ko gis loolu da nga koy dégg ci ay góor di ko dégg ci jigéen waaye kenn warul wax ne bu ma nekkaatoon xale fi la dëgg dabee rek foofu nga koy jële dëgg fu mu dawee nit na ko jël waaw yenn saa yi nga gis góor gu ne de kër gaa ngi nii ñë- ñëpp jëlal nga yóbbu leen waaye man nag mënumaa dem loolu musiba la dafa war a ñëw dëgg fu mu la dab da nga koy jël waaw loolu mooy mbirum islam mooy jullit saa yoo nekkee ci caaxaan nekk ci réer wala nga nekk ci ay aada wala nga nekk ci po wala nga nekk ci ay bidaa su dëgg ne tëll sa kanam jëlal waaw ndeysaan amoon na benn paa bu ñu daan àndal ci jàkka ji su jullee xabdi rek paa yi ñëw ne ko ah léegi ci diina xale yi nga nekk diina xale yi lii xale yi lii julli xale yi la ah yow léegi mbay ci julli xale yi nga nekk julli xale yi lii xale yi la ah julli xale mag daam ndeke julli mag am naa déedéet julli mag amul julli xale amul man lazi yamnauna anil iman lan moo nu teree gëm maadaama dëgg ñëw na moo ngi nii lan moo ñuy teree jël ngëm gi wa yasudduna an ittibaay laq lan moo ñuy baare ba nu jël dëgg mbokk yi dëgg ngi nii jëlal ngëm yàllaa ngi nii jëlal bu la dara baare rawatina nag bu mbir mi leeree nañ sa kanam pang jëlal bul yox yoxi waqad zahara alhaq almunir dëgg bu leer naññ mi ngi nii zalika fi jawaab man ayarahum bil islaami min al yahud waaw lii nag tontu la boo xam ne yàlla nga ko doon tontu ñi nga xam ne ñoo ngi ayibal islaam ca yahud ya mu ngoog kon dëgg mbokk yi fu ko nit fekk rek na ko jël xam ne moom moo ko moom gaañi yemuñ ci loolu ñu ne wa nat maaw ñun de noo ngi xemmem an yudxilana rabbana rabbuna ma alqawmi salihin ñun de yaakaar nan na ndeysaan sunu boroom ah sànq eggaliñu woon aaya bi eggul woon buñ koy jàng ñun de xemmem nan sunu boroom mu dugal nu ah wa yudxilana rabbuna ma alqawmi salihin ñun de xemmem nan sunu boroom boole ñu àndal ñu ak nit ñooñu nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi yaakaar alxaalu annana natma noo ngi xemmem an yudxilana rabbuna aljanna sunu boroom dugal ñu aljanna tàbbal nu aljanna bi soxbati saalihina ci ñu ànd ak nit ñu baax ñi min ibadihil abraar ci jaamam yu sell yooyu noo ngi xemmem ëllëg yowmal qiyaam danañ dugg aljanna yàlla boole noog ibrahim boole noog muusa boole ñoog isa boole ñoog Seydina Muhammad waaye boolu nekk Aboubacar ak Umar ak Ousmane ak imam Malik Ahmad Shafii ndeysaan nit ñu baax ñi allahu akbar allahuma ijalna minhum ba ñu waxee loolu fa asaabahum llahu bima qaalu yàlla daal leen di defal la ñu bëgg ndeysaan jazahum yàlla fay na leen ala imaanihim ci seeni ngëm wa tasdiqihim ak dëggal gi ñu dëggaloon wa atiraafihim bil haq ak reconnaître gi ñu nangu dëgg yàlla fay na leen dugal leen aljanna fa asaabahum yàlla fay na leen fa asaabahum allah bi ma qaalu la ñu waxoon ñaan gi ñu ñaanoon yàlla nangul na leen ko yàlla defal na leen ko yàlla na leen yàlla fay jannatin ay jardin yoo xam ne tajiri day daw min tahtihal ci suufam al anhaar ay dex xaalidina fiha buñ fa duggee dañ fay sax duñu génn yàlla mu ne zalika li jazaa'ul muhsinin lii laay fay ku rafetal allahuma ijalna minhum dal nañ yàlla boole ci ñooñu di rafetal al imam sayid xawa rahimahullah mu ne bu ngeen jàngee alquran bàyyi leen xel aay fu muy jeexee fii sunu borom nee na wa zalika jazaul muhsinin moo tax gis nga alquran amul fenn fu mu wax ne ñoom diw rek laay fay ñoom diw ñoom ñoo moom lii déedéet soo defee lu baax rek yàlla nee na la ma doon fay ñu baax ñi ma fay la almuhim mooy ndax def nga lu baax li gis nga ñi ba ñu defee lu baax gëm alquran bi yàlla wàcc ci muhammad dëggal téere yàlla bi bàyyi caaxaan daal di topp dëgg ñaan yàlla yal na leen yàlla fay ci loolu dugal leen aljanna yàlla daf leen fay yàlla ba mu leen fayee ba pare mënoon na wax ne ñii kese ñoom ñoo moom lii keneen bokk ci waaye mu ne wa zalika jazaul muhsinin ni ma fayee ñi laay fayee ëllëg ku rafetal kon man mii toog yéen ñii toog yéen ñi may déglu ku ci rafetal yàlla fay ko hal jazaul ihsan illa al ihsan ku def lu rafet rek yàlla fay la yàlla mu ne wallazina kafaru ña weddi yàlla wa kazzabu ñu weddi bi ayatina sunu al sunu alquran bi ulaayika ñi ashaabul jahim ñooy waa safara gis nga beneen aaya bi ñëw na fee yàlla na ñi def lu baax lan laa leen fay wa zalika jazaul muhsinin fii mu ne wallazina kafaru ñi nga xam ne nag ñoom dañoo weddi lànk fittirlu yemuñ ci weddi yàlla waaye wa kazzabu ñu weddi li yàlla wàcce ci muhammad ñu weddi alquranu yàlla bi weddi yonent bi ah wa kazzabu bi ayatina ñu waa weddi sunu aaya yii ñu lànk fittirlu yàlla mu ne ulaayika ñooñu def loolu ashaabul jahim ñooy waa safara kuy làcce waa safara bu gisee ñu mel nii na leen jël nga xam ne ñii la jahadu weddi nañ bi ayatillahi aaya yàlla yi wankaru weddi nañu bi nubuwati muhammad ak nekk yenent yenent yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam fahum min ahlil jahim ñoom waa safara la almuazzabuna fiha ñoom la fa yàlla di mbugal waaw lu tax ndax dañoo weddi dañoo waroon dëggal yonent bi dëggal aaya yi ñu daal di weddi lii nag sunu borom wax nañu ko mu nekk targhib ak tarhib xemmem loo ñu ci aaya bu njëkk bi waaye aaya bu mujj bi mu xupp ñu kon ñaari aaya yi nga xam ne tey fa la ñuy jeexalee yàlla wax ñu njëkk ña ñooñu dama leen di fay parce que dañoo rafetal yàlla wax ñu mujj ñi dinaa leen duma parce que dañoo weddi kon ku jàng loolu ku dégg lii yëg ne boo santee sa borom jaamu ko dëggal yonent yàlla muhammad topp li la yàlla sant yàlla fay la waaye bis boo ko weddee weddi alxuraan yàlla gi weddi yonent yàlla muhammad yàlla dina la duma ëllëg kon ñaar yooyu leer na nañ kon ku bëgg ku la duma de xam nga fi ngay jaar ku bëgg ku la fay xam nga fi ngay jaar ku bëgg dugg aljanna xam nga fi ngay jaar ku bëgg dugg safaanit xam nga fi ngay jaar yal nañ yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko yal nañ yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko loolu moo doon dara si tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bu fekkee am na ay laaj. tafaddal yaa Cheikh.
waaw am na laaj ndax bu ñëwee yëngu